m'appelle Abdoulaye Kane j'étais à l'école Serigne Assane Fall 2. alors naa bu baax. Mm. waaw mm? de pour man. en classe. déglu rek bu baax. Mm. tudd El Hadj Madior Diagne nekk enseignant ici IEF Thiès maa ngi servir école bi ñuy wax Serigne Assane Fall 2. donc de affaire bi ngi tàmbalee 2019 laa ko yor mais avant la d' abord dañ ma formé madame Gaye Marcel moo ma formé ci Braille initié ma ci. donc ma jël Ablaye ak ablaay nag bon vraiment affaire bi yomboon na trop parce que dama foogoon lu jafe la mais vraiment lu yomb la neex naa jàngal il comprenait mieux que les autres et était le meilleur nekkoon na ci élèves yi gënoon a xarañ ci sama classe wax dëgg yàlla bon ma gis ne aussi tam comme avenir la parce que li may wax rek cinq organes de sens la am kon daanaka benn bi rek moo moo doxul waaye is des yëpp a ngi dox vraiment loolu daal laa moom lu may wax ci inclusion bi di di ñaax sama mbokk jàngalekat ni leen euh, inclusion nekk na loo xam ni jafewul mën nañoo jël xale bi boole kook ay moroomam du yàqalu ko dara te du yàqal neen ñi dara it vraiment mu nekk loo xam ne bu ñu sañoon aussi tamit gouvernement wu Sénégal dina ko jël en charge gën ñu cee jàppale gën a jàppale enseignants yi jàppale formateurs yi jàppale partenaires yi loolu tam ñu koy rafetlu quoi. je me nomme Mame Absa Fall. je suis euh, élève de la sixième au groupe scolaire Vision Éthique. kontaan naa liggéey bu baax. Ah. damaa liggéey bu baax da ngaa jàng bu waaw si mathématique mhm. euh, ñu gën jàng bu baax pour promouvoir excellence. Lamine Diaw je suis enseignant à l'école élémentaire El Hadj Amadou Mokhtar Thiam école d'application. Ah, vraiment élèves bu ñu bu ñu bu daal. tax euh, moins wane na école bi wane na ñun ñu jàngalekat yi. moom li ko war mooy xëy na xale yi ñàkk bëgg itam ñàkk xëy na euh, ni leen koy jàngale ni ñu leen jàngale moo tax xale xëy na duñ ci duñ sawar donc am na noo koy jàngale élève bi xamoo ko la mooy njariñ mathématique dana tax mu sawar ci mooy problème bi. beneen bi aussi ñu koy jàng tam xëy na am na xam ne si taxuñu ko dégg mathématique lool su mbir tam boo ko déggul pour nga mun ko jàng day xaw jafe. waaw donc li ñuy wax les fondamentaux loolu boo ko maîtriser itam doo ko ko mën a jàngale loolu moo tax xale itam bëgguñu ko mais lii concours bi tax na xëy na xale yi mën nañ cee sor bu ëllëgee man mën a fexe nañuy bëggee mathématique importance mooy mathématique moom boo ko aayee bunt yëpp doon ubbeeku ci nga mën nekk ingénieur ci nga nekk ma médecin ci nekk pharmacie loolu mu bëgg rek les métiers d'avenir de ce pays la il faut passer par les mathématiques et les sciences